jërëjëf suñu mbokku téléspectateur yu Bantamba TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax mbokk yi di ñaan jàmm ci réew mi di nuyu réew mi di nuyu biti réew di nuyu képp koo xamante ni rek doomu réew mi nga ak fépp foo mën a nekk partout dans le moon ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ñaanal jàmm mbokk yi tey bisu la 14 juillet mbokk yi Iman production wala Ñambur production moom la ñu àndal tey mbokk yi combat bu mag bi brise de mer numéro 2 bu caaro yi moom moo ko ak Petit waaye combat boobu dafa mujjee yàqu ndax Brise de Mer numéro 2 dafa feebar loolu moom moo tax mu dugal médical combat bu mag yàgg naa yàqu ci làmb waaw mais combat bu mag fi muy yàqoo baaxul une semaine avant combat wala deux jours wala trois jours avant combat loolu dafay métti des fois ci promoteur bi waaw mais nit nag moomul boppam wir ak jagadi ñoom ñoo ànd nit ki dafay wiir ba mu yàgg mu feebar mu tawat. loolu mbir sunu borom la waaye ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla defal leen wér gu yaram ci barki Cheikhul Khadim mbokk yi di leen nuyuwaat bu baax a baax di leen xamal ne am na nañu mbégte ci téléspectateurs yu Bantamba TV rawatina yéen ñi nga xamante ni yéen yéen a safoo pincum làmb ji émission bi nga xamante ni moom mooy am àjjuma bu jot ci biir Bantamba TV ñu ànd ceeg lu doxee as Bécaye Mbaye ànd ceeg buur ànd ceeg Fadam Tou l'expert nga xamante ni foo ko fekk li xale yi di ko tooñee naan ko bu lekkul ma ngay naan ànd ceeg Babacar Diop le grand arbitre surtout jal jóob bi mbokk yi émission boobu dafa doy waar bu leen ko di fàtte mukk chaque vendredi pencum lamb mbokki ñu ngi leen di nuyu waaye lu lamb altine bu jot ak mercredi bu jot ak Baye Balla Mboup bu leen fàtte émission yooyu Sajjum lamb ji ak Père Ñoxo Baye sunu papa mbokk yi léegi ah papa bu ndaw moo daan booy plateau léegi. Ah, ah duubal bu jagle dina fi bëri ak ki nga xamante ni moom mooy ndongo daara bu écurie saar doomu yoof ak fis de Samsam dinañ bëre fis de Ndiaye Guèye ak Douglas tamit dañ fiy bëre waaye yeneen combat yi jëlee yëpp jàll na waaw combat yi léegi dafay gaaw boo xoolee ñaq de moo fi doon bëre ak Forza ah duubal gay duubal moo fi doon bëre ak gay Ali Boy Jum ak Baye Gora ah X9 Nongolo Junior bu ba siini bu barñi moom moo daan tamit ak Lang Saane Karbas ak ba Bapara Sapara a ah bu ndaw moom moo mujjee bëri léegi donc kon trois combats moo des ci làmb ji tey. làmb yi dafay gaaw Pa Modou Mbaye le grand monteur série Anne Marie Bey xaaral ma jëlal la li xew ci star bi tey ak njàmbur production après ma jox la ko nga joxal ma ko madame Bat xolo ñu liggéey ko ba mu neex ba mu naaj comme ni nga ko daan defee rek ñu jox ko ñi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yu Bantamba TV ñu koos ko xolo bu baaxee rek jox la jëli ko lex mais xolo lex xolo fi ma génn kii booy cëmboo moo ma fi génn booy cëmboo cëmboo shop waaw benn booy la ma nga ca ginnaaw raay nekk xale boo xamante ni moom it ndaanaan la waa jàmbaar la liggéey kat la waa cëmboo waa ensemble yu rafet yi moom moo koy joxe waa ku ci bëgg na ko woo ci numéro 77 162 38 cëmboo sopp 77 162 38 74 nekk Pikine ginnaaw raay Siny Bargny laa andi woon. indi woon. Siny Bargny. ah Siny Bargny waaw borom champion d'Afrique borom chef de l'État borom CDA. ah Siny Bargny mi mi mi bokkoon ci. chef de l'État ba ngeen. ngeen di ko tàggalu nee. un grand champion. wallaahi laazim. billaahi da nga ñëwoon si jëlee double moteur ma la bàyyil xel si kanam am na xale buy fël la bu ñu naan Siny Bargny bàyyi nga ko xel mais tey bàyyi nga bennoo mbokk yi papa bu ndaw moom moo ñu wan ginnaaw. def leen combat bi ginnaaw bi mu leen laajee li namm nang ak li làmb bañ mbokk yi Elimane production moom moo ñu woo fii tey ci biir arène nationale mbokk yi ñaar xale yi ñu ngi léewtoo papa bu ndaw ak booy plateau ñoom ñaar booy plato ki ngay bëreel sut na la ëpp na la relance waaye doole ji wóoruma loolu ñu ngi la jinne ah, am naa bégte am kontaante ci bés ànd ak sama doomu ndey sama xarit sama lépp Arona Ngom ak euh, Adama Mohamed Mbaye premier adjoint maire muy sama rak ak délégation bu takk ma ànd fi tey ñëw ci bés bi bésu Elimane Lo bés Mamadou Moulay Guèye El Hadj Mamadou Moulay Guèye maire commune u Diamniadio bés bi moom laa ko jagal moom laa ko jox ngir lépp lu ma am yàlla moom la jokk population Diamniadio jigéen jigéen ñi mag ndaw ñëw nañu wuy si bës bi booy jum daanu na yàllaa ko dogal bay góoro daaneel ko yàlla moo ko jox ndam li yàlla na ko jig diwaan yi am nañu kontante am nañu bégte ànd ak jigéen yëpp conseil municipal yëpp conseil municipal yëpp ñëw fii ci bés bi kontaan nañu. di ma di ma ah. première édition bi la dëgg la lii mooy première édition. kon nag vraiment am nañ bégte am nañ kontante euh, ku ma àndal nii nag turandoo El Hadj Mamadou Moulaye la kon nag yéen tamit waa presse bi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di am bégte ànd naa fii ak soxna si première dame Awa Badji deuxième dame Mame Diarra Bousso. mais bëgg naa la. ah waaw maa ngi lay booy bëri nga bëri pour yéen. booy fi la booy plateau egg. dafa sori. dëgg la dëgg la nga def bëccëg. ma sant yàlla maa ngi sant sama ñaari waajur bu baax di sant sama papa ak sama yaay bu baax di sant waa Cambérène ak waa Parcelles. Baye Bala man champion laa mbër laa gars yi xamuñu ma man na ma yi jàppale Baye Bala dama gars yi jàppale man champion laa war a doon. gars yi jot seen gars nekk sama ginnaaw seen seen loxo jotu seen ginnaaw xam nga te may taxawu six combats six victoire laa def xam def nga six combats six victoires. waaw Boussa 2 na ñëw ñu bëree. maa ngi moom làmb daaxu ko. Boussa 2 maa ngi moom làmb daaxu ko sant naa ñëpp di ñaanal fii sa liiru kooku champion la Baye Ba la ko gars yi bu baax. di sant waa xeer bi. waa xeer bi amoo seen fay sant naa gars yëpp xam nga Ousmane Bada maa ngi koy bu baax ak ñàngaloo ak gars yi waa Fakalaan bàyyi ma kenn sant naa ñëpp waa géej gi Suko sëñ Modou Fallou Kol Daara Nees xam nga Azou Sobo Azou Sobo maa ngi koy ak Sadio Mané Liban bu baax saa borom sanoo jaaytaar sant Baye Bara as numéro 2 ak Fils de Ndiaye Gueye ñoom ñoo nekk ci digg géew bi mbokk yi dugg as numéro 2 moom moo féete sunu ndeyjoor Fils de Ndiaye Gueye moo ñu wan ginnaaw dugg as numéro 2 looy arrière arrière na ba ci saaku yi taxaw na ñu ngi léewtoo ñoom ñaar Douglas ak Fils de Ndiaye Gueye Douglas écurie Lansar Fils de Ndiaye Gueye écurie Dóor Dóoraat Fils de Ndiaye Gueye tefes gi Fils de Ndiaye Gueye écurie tefes gi tefes gi Fils de Mbaye Gueye Fils ak Douglas le fiis de Mbaye Gueye moom moo nge moo ngem lu ñuul li ñu ngi lewtoo ñoom ñaar Douglas ak Fils de Mbaye Gueye Fils de Mbaye Guèye ñu ngi lewtu Douglas mi ngi dox ci kawam Fils de ak Douglas jàppante nañu daje jàppante nañu Fils ak Douglas Douglas takk na ko Douglas laa ilaaha illallah na ko daan na ko waaye Douglas waay waaye Douglas waay lan Sarr yàgg naa bëri ay champion mais boy Douglas xoolal li mu indi yow booy Douglas indi naa ay supporter ah. waaw fils de Mbaye Gueye am nga mbetteel de waaye yëngal na bopp bi nee na lii mënul nekk ankay mën na nekk ci ko entraîné ci ko pare. ah dafa mel nii Douglas daf la gën a pare eh booy eh baal sa téere yi ngay dind nag di sànni déedéet faral protège-dents bi bul def loolu li làmb la rek tey da daan suba ñu daan la bul sànni takkuwaay yi waaye amal kóllëre daan na la may ndam waaye lii la leew classe booy bëri nga bëri bu dee ah. gis nga waaw lii lañ ma sandoon. mais combat bi naka nga la avant tout. bi ngeen jàppante fekk nga fa doole. waa fekk naa fa doole mais gis nga li ñuy wax rek bésu ndam moom noo ma di def ndam ngay am ma di ko encouragé di wax ni ndaanaan la xëy lii la yàlla dogal moo tax mu demee nii mais sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp maa ngi sant nag grand Malick bu baax a baax. président Mor Niass sama gox juddoo caare kaw maa ngi sant bu baax a baax. mais luy problème bi Mame Balla. Baye Balla problème bi benn saa nii dama yaakaar ne xam nga. adversaire yi dañu ruuf wala. adversaire yi ñooy daw parce que ku mel ni Baye Ndiaye ñu ko nuyu bu baax baax dégg nañu téléphone. pour bu a woo na ma fi dama sa combat Mor Kang Kang ñaata ma boole kaag ñu war a waxal petit production nekkoon na ba Dubaay ne ma Baye Ndiaye laay wutal combat sa combat Mor Kang Kang waxaale ko dem ba si biir sànq laa mujjee dégganteeg sóoru ma ne ko dégg naa yaa combat mu na ma gars yi nee nañ Mor Kang Kang ëpp doole ma ne ko bu dee kon day bëgg a nekk dara si lamb ne mam baa laa ko ëpp doole kon jarul moo mu bàyyi ma fa dem jëli ji booy booy jóg góor soog sama ko baax moom Fallou Ndiaye ko ba bërki démb laa si mujjee wax mu ne ma naa ko waat ba nangu woon na mu dawaat Modou taxaw na si télé bi ne bëgg na combat Mamba la ñu dagg vidéo bi envoyé ma ko doomu dàngu tamit taxaw na benn saa ne bëgg na bëre Mamba la ñu dagg vidéo bi envoyé ma ko Fallou Ndiaye muy woon si combat boobu noonu mais léegi laa dégganteeg maam maam maam Diop xaw ma ménagère bi ménagère euh, doomu dàngu mu ne bëgg nañ bi tënkee ko bëgg a indi ma ne ko amul problème fekk si leen dóor la ñibbi si laay def fay leen ma lu ko jar rek waaw waa di bëggee ñëpp waaw moo loolu. Milano bàyyi bàyyi la muub. ndax borom dëgg bi keroog dégg naa bés bi réussir na. ah dégg naa bés bi réussir na keroog. ah réussir na moom yàlla ànd seeg Bantamba TV leen mu ñëw jàpp si liggéey bi waaw di ziaraat ñëpp di bëgg waat ñëpp di leen wax nan xaar retour de Milano production bii di ñëw. incha allah incha allah fas yéene see ànd ak Bantamba TV liggéey si liggéey bi am solo. noo tudd. duubal bu jag la. duubal bu jag. waaw. waaw ah, yaa war a bëri spécial. Ah, grand combat bi. dafa yàqu. daa mooy nekk grand combat. mooy grand naaj. lépp jag sant bu baax. bu jag la ban écurie. Euh, Songane Gueye. waaw. naxamu tey gis bi. ñëpp a génn ah gis naa ñoom Youssou Ndour ah, ñaaw aussi. loolu mooy tëngeej. loolu mooy tëngeej parce que tëngeej moom. Tëngéej bu soxlaa ku soxla da ngay ñàkk waaw loolu koy sant yàlla bu baax. allo indi xeex la wala lépp laa indi waaw. combat bi minute la wala seconde. lépp mën na cee xew. dégg eh, naa la combat bi août ah, mu tey bu jagle yéen a koy. waaw ñoo ko andi incha di ko ñaanal borom bi may ka bu baax a baax a baax di bëggee waa Tëngéej di jox RV le 4 incha <laughs> kilifa gi yaar naa la na xam ñu ngi sant yàlla bu jagle a koy waaw waaw am tu moom yaakaar ak confiance incha allah di ñaan yàlla may ñu ndam rek mais Ro foo toll man man Mame Balla mais laa bëgg Mame taxaw na ñëw ñu bëri ah. man damaa sonn si booy booy bi yow lañ bëgg de. X9 a ngi nii. X9 a ngi nii. nee nañ X9 a ngi nii. voilà x laa bëgg. Mampal laa bëgg. Mambara na ñëw si egg si neuf. man maay moroomam man maay moroomam man damaa li jël saa bokkal. jaar fii du foofu fii la war a jaar. Ah, balaa muy jaar foofu. Mampal ñu ñëw bëre. man damaa saf lamba. Mampal dégg nga saa bokkal la daan. man la Ronaldinho damaa saf lamba. Mampal dafa fop. la ñëw ñu yokk coom. affaire bi sa boxol mais mais nee na nga jaar ceeb si nag. kii laa bëgg sëñ bi eh. kii laa bëgg sëñ bi eh, balaa ngay jaar ne fii ngay jaar kii laa bëgg fii ngay jaar ba pare mam bala fii ci fii lay jaar ba jaar ba pare kii laa bëgg maa ko gën a saf làmb fop maa ko gën a saf kii laa bëgg kii laa bëgg balaa dama koy daan fii ngay jaar ba pare dama koy daan waaye voilà moom ngay jaar fii Balla laa bëgg yaa ngi tëkku champion de barki yàlla moom Balla laa bëgg barki alxuraan maam Balla laa bëgg tëkku bëri kat moom Balla laa bëgg barki alxuraan maam Balla laa bëgg barki yàlla Mamadi na nee na nee na maam Balla la soxla dama koy daan sa morom yi am na ci am na ci droit ma ma Baye Balla dëgg nañu ko wax Kanté man Baye man man Mame Balla laa àndal kii dafa daan Moussa Ndoye daan Mbaye Diouf daan Thiatou Yarakh am na mu fi def Ronaldinho am na lu mu fi def mais pour man yegg seegul ci kii moom ci neuf combat waaw léegi kaay ma wax la Karbala mu ngi fi Karbala mu ngi fi duubal yi war a bëre social mu ngi fi mais nag mais Mamadou mais Mamadou ci palmarès léegi lamb ji foofu la toll man du ma man du man déglu ma déglu ma Baye Balla man du ma nekk du ma nekk si écurie yi du ma nekk si écurie yi du xool sama sama samay leetaan yi war a bëre may bëre ñoom. billaahi dama koy daan maa nga dàq bëre maa nga ko xal maa nga ko doole affaire bi wóolim de waaye man pare itam am na droit bañ la waaye léegi man tamit am naa droit kii na jël carte wala non jël carte na jël duumam na ñëw ñu billaahi wallaahi taalaay maa ko dàq bëre maa ko bu doole maa yow maa la mën yow maa la mën moo indi lii lépp yow maa moo tax mbëri di gëj a maa la mën nuyu naa la bàyyi baala ziar naa la sant yàlla sant gay ñu indi daa bëri woon kii ni kii Pape bu yomb la ah. Guèye Allé waaw daa ñaag waaw ana combat yi gaan combat la ko. ah man boobu ba tey jii bëriwul bi mu fi jógee maag almaa ba tey jii bëriwul. ba léegi nii waaw ah, junior doomu Mor la. waaw mën na nekk de su ma ko gisee ma jël de su ma gisee adversaire tey tey tey ma jël waa yow. koo xam ne yaa ngi ci wàllu politique bi yaa ngi fi ànd seeg sunu frère nga xam ne tey bés bi moom moom moom lépp muy sunu frère Sega Ndoye ànd ci aussi Seeg euh, Lamine dama lay wax tey ne la benn parti desul. tey parti yi nekk Tëngéej yëpp ànd nañoo ñoom ñëw fii. eggali ko ci kaw. incha allah lool la ñuy def. combat bi ñaari xale yi ñu ngi liwtu ndeysaan mbokk yi huitième combat de la soirée ndeysaan fils de Samsam ak doomu Yoof ndeysaan doomu Yoof sunu càmmoñ fils de Samsam sunu ndeyjoor. ñu ngi lewtoo ñu ngi damante ay baaraam Doomu Yoff sànni na benn ku ñu ngi lewtoo ñoom ñaar doomu sam-sam wala fils sam-sam ak doomu yoof ñu ngi damante ay baaraam jàppante nañu lan moo tax ngeen ñëw ba ci saako yu bëgg a bëri loxo bi daa simmeeku loxo bi daa simmeeku arbitre bi woowaat na leen sifflé na combat bi doomu sam-sam fils de sam-sam ak doomu yoof ñu ngi damante ay baaraam jàppante nañu doomu yoof jàpp na lan la bëgg doomu yoof jàpp na lan la bëgg fils de sam-sam jàpp na ndeysaan sam-sam saa bu mu ko diggi sama xel dem ci baaba jaxal da koy kal ah laa ilaaha illallaah kalba danga ko yóotu da ngaa yóotu Kamba la nga bëre baaxul doomu Yoof da nga kalbi da ngaa kalbi xale yaa ngi noonu fils de Sam Sam daan doomu Yoof fa nga yóotu kalbi dafa sori torop Euh, Mamady maa ngi lay nuyu di nuyu waa ITV di nuyu say téléspectateurs yi lay seetaan yëpp di am kontaan ak mbégte tuuti bu baax a baax a baax a baax ci yow. ñuy kontaan di bëgg ci yéen di nuyu site yi nga xamante ne si ne ñoo ñu accompagner vraiment di am satisfaction bu baax a baax ci journée bi nag. ginnaaw loolu kenn ku ne xam na ne Brise de Mer numéro 2 dafa am jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram combat boobu mujjewul am waaye boo xoolee stade bi xam na yeneen xale yi taaral nañu ko ba loolu feeñul tey. waaw xam nga Mamady Njàmbur alhamdulilah macha allah sant yàlla bu baax ndax duñu def lu ndaw lépp lu ñuy def dañ koy xam maîtriser ko. combat bi bi nga xamee ne si ne yëg naa ne Brise de Mer dafa am blessure am certificat de médical boo xam ne dafa am repos deux mois dama renforcer journée bi favoriser combat spécial bi def ko grand combat gëm ko. continuer sama liggéey xam ne njàmbur du deltu ginnaaw ba tey ñu am ci résultat bu mel nii sant ci yàlla bu baax a baax a baax parce que loo gis rek expérience da caa baax yaakaar naa ne tey jii suñu expérience suñu xam-xam suñu jën njàmbaarte macha allah moo tey journée bi moo tax tey journée bi réussir comme ni Mamadi. kenn ku ne xam na ne fii ak deux mois saison bi day tëj un mois et quelque moo ci des brise de mer numéro 2 ak ki nga xamante ne mooy Petit Lo yaa ngi jëm ak moom bu ma juumulee. xëy na sax dama lay jiitu waaye xam naa ne ubbiteel saison bi du sori octobre wala novembre. man maay ubbi saison bi incha allahu rabi ci Petit Lo ak brise de mer man maa la jox xibaar boobu incha allahu rabi man maay ubbi saison bi diggante Petit Lo ak brise de mer parce que repos deux mois lañ ko jox deux mois moo tee saison bi tëj su tijjiwaatee rek day fekk mu nekk ci wér-gu-yaramam ñu ngi koy ñaanal nag yàlla ndax xale bu baax la xale bu yaru la. te wax dëgg yàlla amul benn tappale dafa xam ne dafa feebar mu ñëw déposé médical bi mu déposé médical CNC nangul ko ko ñu ngi gërëm waa CNC bu baax nag di ko tàmbalee ci la président Brasseur ak ñoom may Maysa Ndiaye ñoom Maguette ñoom Ndiame vraiment di rafetlu bu baax a baax a baax a baax seen taxawaay parce que am nañ ci ñoom qualité am ci ñoom respect bu toll ne lépp loo xamante ne si ne dogal nañ ko ñun d'accord nañ ci ak ñoom moo tax bi ma jotee këy bu may wane ne Brise de Mer mënut a bëre dama santaat yàlla gërëm sama yaay gërëm samay waajur xam ne wax dëgg yàlla lii la yàlla dogal mais terewul journée bi réussir nañ ko niñ ko waree réussir boo xoolee tey stade bi ni mu mel nga gis xale yi ni ñu mobiliser lamb ci ni mu feese macha allah nga xam ne lii boo amul woon. maara day taali te tey dañ cee ànd suñu ay sponsor yoo xam ne ñoo ñu gunge muy ku ci mel ne wan si bet ànd ci ak Alba Trading ànd ci ak CO ànd ci ak fitness vert ànd ci ak sponsor yi nga xamante ne si ne mooy Tampico nga xam ne Tampico macha allah gis nañ jéego yi mu def ci làmb bi tey ji vraiment kontaan nañ bu baax a baax a baax ci sunu ay sponsor dem ci kaw jël sa bay naa da ngeen indi woon benn champion. waaw Siny Bargny. moo daan moo daan. mu ngi leen di félicité. waaw merci. Quench fan la toll. mu ngi toog dee waaj rek. père Bégaay nga nuyul ma ko bu baax tamit. siyaaral ma ko bu baax. waaw naa ko torop. mais lan ngay waaj yan combat. waaw kon gaa monsieur nee na damay may chance dama may chance ñu bëre. ah loolu d' accord waaw moom loolu. loolu d' accord nee na daal dafa daf ma bëgg a may chance pour ñu bëre waaw te xam naa ne yow boo si mu taxaw waaw incha allah yow jàmm maa ngi lay nuyu. maa ngi delloo nuyu. yaakaar naa ne gis nga Tapha Tine gis nga Balla Gaye numéro 2. waaw. tey lan nga may wax ci combat waaw man pour man combat mental lay doon rek parce que combat revanche lay doon kon combat revanche moom comme dañ la daanoon da ngay ñëw indi yeneen argument pour mën a fayu mais ñëw pour jël revanche ak ñëw pour rayante bokkul da ngay demee ak bopp parce que bal Balla Gaye quoi qu'on puisse dire aussi champion la quoi te bu amee tuuti sa entraînement rek day xaw a jafe yëngal mais Tapha Tine par rapport ak li mu liggéey pour man bu bàyyiwul dara xel si Balla moom moom moom làmba ji waaw day fekk mu moom mu gëm boppam rek waaw. Tapha ak Balla Gaye numéro bi gis nga ñaari doon un un doon Tapha day ñëw jël si revanche te revanche day ñëw jël si ndam quoi rafet. Balla Gaye numéro 2. lamb ju garaaw gis nga koy wax léegi ma tafaatin mii am léegi nii mu tey mii ak tafaatin mële bokkul tafaatin mii am na lu bari lu muy jomb léegi ba pare boole kook bawol takku ànd ak moom waaye ka muy fekk si mooy kan doo mu Less Balla Gaye numéro 2 mën naa laa wax ni la le 21 ans fii di fi gis lambu joo musul gis maa la wax loolu Tafatine gis nga ñaari état fi si ko waaw ñaari état ñaari état baax na ñaar bàyyi baal la mais ban laa gën am yaakaar mais ñun xam nga dañoo am bis moo tax ñu wax si benn bis dañoo am bis mënuñu wax si benn bis le 24 novembre président bi xam nga rek dañuy xaar rek. bu bu bis bu Siteu amee bis doo wax beneen. loolu moom mënu ma wax si keneen pour Siteu rek. grand combat bi mais dama bëgg balaa may ñëw ci loolu. non non le 21. mais danoo jëm ci bis bu mag te yaa ko wax. Alburax dagal na la bii pour nga ñëw jàpp ci bis boobu noonu mais ñaari ñaari ñaari mbër yi seen état de physique gis nga ko keroog jàkkaarloo nga ak ñoom sur la 2STV. mais lan ngay wax ci. mais yaa nga fa. maa nga fa kay. loolu moo tax analyser woo. mais dama bëgg nga analyser moom ñaari mbër combat bi boo ko dee xool ñaari mbër yi li ñu indi ci làmb ji kero jàkkaarloo ba lépp kumpa la combat bi lépp kumpa la Balla Gaye ku naw combat bi la ku ko fonk la ku fonk combat bi la Tapha gën koo dee ak ay mbokkam mais bis bàyyi baax la combat bi kenn mënu ko analyser. mais ñoom ñaar kan moo ëpp avantage boo leen yéen ñoom ñaar ñoom gis nga leen nuyu nga leen xam nga seen qualité bëre aussi xam nga qualité bëre la gay xam nga qualité bëre ak Tapha avantage bi ci xeex bi ak avantage bi ci bëre bi ci. xam nga Sénégal gépp dañoo wax ne Tapha gaawul ñëpp ni Tapha Tine amul réaction ñëpp ni Tapha Tine Balla Gaye da koo napp ba bi da koo napp ba loolu la wax ci combat bi yaa ngi dégg mais moo la benn affaire bu tuuti na nga bàyyi xel ni Tapha Tine bu dimanche ji ni indi leneen lu bokkul ak li ñuy xalaat. loolu laa lay wax nii. maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar mon ami. naka sant bu baax le 21 bu mag la Balla Gaye numéro 2 ak Tapha Tine avantage bi ci bëri bi ak avantage bi ci xeex kan moo avantage ci bëri bi ak kan moo avantage ci xeex. waa xam nga làmb ji làmb kumpa la li tax muy làmb kumpa Balla Gaye dafa am fu mu nekkoon yàlla dogal muy def ay performance mais ba mu yàgg muy def ay contre performance bi muy daan Tapha Gaye Tapha Tine en 2014. boo xoolee Balla boobu ak Balla Gaye bi am na différence amoon na différence bu mag ci ginnaaw mais Balla Gaye bi ma gis mu signature barki démb différence bi bëreetul Tapha Tine nag soo ko xoolee 2014 ba tey dafay progresser vis-à-vis ses combats et ses performances vis-à-vis son forme actuelle dafay dafay dafay yokk dafay développer bi mu njëkkee def face à face ak Balla Gaye am na état bu mu yor ñëpp nee nañ jàkkooruñ ci dem na ñëw na dégraissé waat. Balla bi u ñëwee njëkk a def face à face ak bi mu indiwaat keroog de suivi yi bokkuñu gis naa ne bëgg na làmb ji lool te gis naa ne ñeme na tafaatin te xam na ne am na fi mu koy jaar ndax dina ko réussir am déet loolu dimanche lay leer tafaatin dafa am lu ko arrangé ci làmb ji bis bu ko defee day dóor Balla Gaye ba mu tëdd muy déplacement ak arrêt gauche arrêt droite dóor a ñëw tafaatin bu bëggee daan Balla day xeex moom dóor a bëre ak moom mais bu taxawee ba Balla Gaye gëdd ko fekk ko fi mu ko nekk jaxase ko bëreeg moom da koy daan. mais psychologiquement Balla dafa mel ni daf ko napp ci ay wax. waaw xam nga loolu mooy li ma wax dama ne baala dafa maîtriser Tapha Tine dafa am ñaari adversaire yoo xam ne dañu maîtriser Balla Gaye mais dafa am ñaari adversaire yoo xam ne da leen a muy Modou Lo ak Tapha Tine saa yuy bëreeg ñoom sur le côté communication da ngay gis ne daf leen ciy dominer te baala digganteem ak Tapha Tine heure bu ko neexee da koy yëngal da ngay gis saa yu ko neexee da koy merloo da koy da koy yëkkati kiyam te Tapha moo war a jéem a progresser sur le plan communicationnel jéem a seet nu muy gérer Tapha Balla Gaye te loolu daf koy dimbale mu xam nu muy géere làmbam aussi itam waaw. maa ngi lay. ba Balla maa lay ziar. mais diggante Tapha ak Balla Gaye numéro 2. ba ma doon wax ci ñaari qualité mbër yi lan nga. waaw combat boobu combat psychologie la parce que ku si gagné sa morom psychologiquement rek yaa koy gagné parce que Balla Gaye su réussir songu Tapha dugg si gardam mun na am dara bu dee Tapha Tine riposté wul mais bu dee Tapha Tine dafa riposté combat bi mun na doon luy bett ñëpp incha kan moo avantage ci xeex bi ak kan avantage. xeex bi avantage ñoom ñaar ñëpp am nañ si avantage mais kuy njëkkee atteindre sa morom mooy moom combat bi waaw su mais nag dafa am nu Balla di bëree mooy day ñëw mëpp soo réussir contenir mëbam boobu mun nga si génn mais soo ko réussirul comme ni ko Eumeu Sène di réussir ah riposte bu am doole mun nga am lu la bett. loo wax ci lamb le 21. mais Baye Balla le xam nga day lamb ju mag kañ le 21 day lamb ju mag lamb joo xam lamb amateur la mais ñuy wax sénégalais yi lamb dafa am beneen taxawaay bu mu am mooy gis nañ que ni temps bi changé na gis nañ ne mbër yi tamit ñu ngi jël méthode ci temps bi changé bi nañu jéem a xool li nga xam ne lamb bu njëkk fa la newoon mooy temps bi. mbër yi di teel bëre di teel a pare lool na gis nañ ne CNG bi jël na ci ay matuwaay mooy lamb à partir de 19h30 au plus tard 20 war na jeex mbër yu mag yi nag ñu ngi leen di lancer appel li seen ndaw yi moroomu mbër yu ndaw yi di def nañu fexe ba jël ci royuwaay bu leen fi kenn yóbbu 22h 23h lamb du mis préparateur mystique lamb ji guddee bi yëpp préparateur mystique la nañu teel a jeexal lamb ji lamb ji jeex 19h 19h30 mu jeex ñu siffler grand combat ku ne ñibbi ndax nag lamb instant yu toll nii boo bëggee dégg-dégg amateurs yi. ñu ci bëri ñëwtuñ làmb ndax lan guddee bi làmb di guddee kon 19h30 au plus tard 20h war nañ siffler grand combat. dégg démb dégg naa journée bi dafa réussir xaas bale nga encaissé dégg. waaw mais Baye Balla sant yàlla xam nga Go Salam production dafa am ay partenaires ku ci mel ni Kandji production Catalina Abdoulaye Touba Belel ñoo ñu gunge te Kandji yaakaar naa ku mu teg loxo nga ñemee kon nag yaakaar naa ñu ngi sant yàlla di sant ak amateurs ñoo ñu jàppale ba lii ñu am nii tey ñu am ko kon ñu ngi sant yàlla di nuyu amateurs yi gis nañ démb ñëpp génn nañ supporters yi ñëw nañu axlu lamb yëpp ñu ngi leen di sant yéen aussi Bantamba TV see ngeen ci wol bu am solo ñu ngi nuyu Ass Bécaye di la nuyu Baye Balla di nuyu Khady Ñaañe sama chéri di nuyu ñëpp maa ngi sant yàlla baax a baax waaw waaw ah, maa ngi nuyu Khady Ñaañe di nuyu pël bi séeri Baye Balla di leen jox seen waay waaw ñu ngi jëm ci combat bu neex combat bi nga xamante ne moom la amateur yëpp di xaar combat bi nga xamante ne nee naa la Tapha Tine bu tëllee Bawol tëll Balla Gaye bu tëllee Géejawaay tëll babaare sama rakk da ciy bëre sama xarit Jacob babaare suñu xarit suñu mag bu baax ci ñun muy maalaw Seeraas da ciy bëre di wax waa ñoom ñëpp nañ génn ñëw supporter si maalaw ak Jacob yàlla na yàlla may ndam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na si si ndax pare ngeen ginnaaw bi mu leen waxee li làmb nangu ak li làmb bañ waaye double bu bu jagle ak ndongo daara moom moo ñu woon ginnaaw daara moo ñu kanam ñu ngi lewtoo Double mu jagle ak ndongo daara ñu ngi lewtoo ñoom ñaar gi daan nga lekk lu ko ak mbokk yi ndongo daara ak Double daara moom moo ñu wan kanam Double bu jagle moom moo ñu wan ginnaaw ñu ngi lewtoo ñoom ñaar mbokk yi Ndiambour production moom la ñu àndal tey ci bis bi mbokk yi bisu le 14 juillet mbokk yi waxoon naa leen ko grand combat bi Brise de Mer numéro 2 ak Petit Lo le fils de Lo ñoo ko waroon bëri waaye combat boobu malheureusement dafa yàqu arbitre bi ngeen leen bëri leen bëri leen kay yéen a ko waxante woon ci signature contrat yi yéen a wu ñëwoon bés bi dinañ ci def lu ñu man dinañ xeex dinañ bëri dangeen di waxante lépp ci signature contrat yi bu dara desul loolu arbitre bi sifflé combat bi ngeen indi dandakum danda soore dandakum danda soore gëj naa ko gis gëj naa ko dégg ca Papa Ngom magu Eumeu Sène Papa Ngom si mbëkkat la woon nekkoon daanaan Demba Ngom ak Demba Furi maa jigéen Sadio Ndiaye ndeysaan mooy bàyyi fils ba saajo le grand champion ñu ngi lewtoo ngi lewtoo ba tey ndeysaan seen lewtoo bi yàgg na double bu jagle laay laay la laa yax bu rëy gobar ko way ba waykat baa ko wayoon ndeysaan njaga moo mën a way ndeysaan moo ne woon wax dana nax nit nga defe ni lu rafet la te fekk lu ñaaw la wallaay ndeysaan ndongo daara ak dubul bu jagle ndeysaan ndaanaan yàgg na ci réew mi ñu ngi lewtu ndongo daara dubul burbul bu jagle ndeysaan asan buub moo ne woon réeru ku la xam sàggi sak-sak la xel nag mën ta ñàkk bis nag borom juum booy diiroo diirool koo yamal mbagg waaye xale yooyu ñoo man a way ñoo ñoo nekkoon ndaanaani réew mi mën a way lool lu ñu way kàddu la waaye bëri na ci xale yi léegi loo xam loo xam ni ñoo xamante ni boo leen bu nu wayun mbëggeel du nu mbëggeel rek la ñuy way avertissement kay Double bu jagle benn ndongo daara benn parce que bëriwu leen li ngeen ñu waxoon defu leen ko mais amateur yaa ngi toog supporter yaa ngi ci kaw waykat yaa ngi way reporter yaa ngi reporté yéen ñaara ci des lan moo tax bëriwu leen bëri leen te bàyyi seen yaaba ji ñu ngi lewtoo ndongo daara ak double bu jagle man gëm naa ne bu nu jàppante làmb man mën naa jeex boo xoolee ñaari bindi yi da nga naan moo gën a baax taxaw physiquement. mais moom nangul jël benn risque. lan moo tax ah encaissé na benn coup ah ndongo jox na ko benn coup déglu bu jagle ak ndongo daara ndeysaan ama neex ñu ngi koy jaale ah rakkam jooju. arbitre bi nee na leen contact ah mais c'est ndeysaan way woowu nee naa la bu ko di way su may reporté sama xel day dem ci duuru yaakat yi billaay moo mën a way moo mënoon a way yàlla na buur bi yàlla sërili cëram ñu ngi xeex dubul bu jagle ak ndongo daara waaw waaw jël jàppante nanu waaw waaw génnaat na lu tax nga jàpp ba assuré wul. waaw waaw Double bu jagle songaan gëy nonga daara lan saar ndeysaan xale yi indi woon dugalaas ba léegi ñu ngi taxaw dafa mel ni ñoom ñoo indi nonga daara ndeysaan kaaro yàlla ni leen kaare ndeysaan laay dëgg la ndeysaan aaye man suma xëyee laa balaa balaa rabana ndeysaan loolu du yaakati moo ko daan way ay laay la laa bilaay ndeysaan moo ne woon amoon na fi nit ñoo xam ni seen làmmiñ a neex ba lu la wax nga gëm waaye nit ñoo ñee yaay yenn saay bu nu wax nga gëm bi ko bilaay dëgg la <laughs> am na ñoo xam ne du lu la wax nga gëm ko déedéet <laughs> bilaay ku koy def yaa ngi ci erreur ñu ngi lewtoo ndeysaan ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ndongo daara dubul bu jagle ndeysaan le vice le vice président du CNG du lutte mi ngi toog tey dafa mel ni combat yi gaaw na trop laay laay la laa ku yi métti na benn dalu ci ni mu war a dalee nag lu ci bëri ay coup perdu la te bu yàggee bu fekkee ay loxoy gàtt nga yor dangay ngay tokki dubul bu jagle eh korba korba korba dubul bu jagle lan la bëgg da koy takk waaw waaw génnaat dubul bu jagle. ak ndongo daara ndongo daara yi dañuy ës nag waaye la ñuy dundee la ceebu njaxas bi la laa ilaaha boo ko dee lekk da ngay woo koŋ barke borom Tuubaa léegi le moo tax Baay Faal bu ma gis ah wala taalibe bu ma gis boo yore pot wala nga yor bool ma tibb ca dangay da ngay koŋ te yooyu boo ko dee dundee pour ñu jàpp la problème lay doona laay la boole la. ñu ngi lewtoo ba tey ñu ngi lewtoo waykat bi xanaa yëgul ni léegi làmb dafay teel a jeex moom day door a ñëwa ah. il chante bien cette femme là dafa mën a way nag xaw ma Sabel Dieng la xaw ma Sabel waa Sabel Dieng la doom la ci Ndiouga Dieng wala la ci Ndiouga drapeau Alpha moo nekk nii waa kër El ñu ngi yi tey ñëpp ñu ngi fi El ñu ngi ñu ngi ko gënoon ràññee ca baaw baab mu nekkoon daanaan mënoon a way lool Alpha Dieng da koo donn xale bi di way way yu rëy ndeysaan te uuse lool mu moo jëng doomam la war naa mën a way ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ci bis ñu ngi léewtoo ñu ngi lewtoo ndongo daara sànni na benn coup ndongo daara jàppante nañu ndongo daara ak double bu jagle double bu jagle day fayu riposte remise xeex raak am na ko ci dem seeti Ibra Baaxum laay laay la laa waa coup bu dalee bu yàgg arbitre bi woowaat na ñaari mbëri sifflé na combat bi ndongo daara dem na seeti Ibra Bakhoum dellu si waat na docteur bu mag bi ci ginnaaw raay la seeti woon Ardo ndeysaan ñu ngi liwtoo ñoom ñaar bubul bu jagle moo ñu féete suñu càmmoñ ndongo daara suñu ndeyjoor seen combat bi dafa yàgg bëre du xeex rek xeex pour wut buntu la boo amee bunt daw jàppante bëri ñu ngi léewtoo ba tey laay laay la laa Double bu jagle ak ndongo daara ba tey ñu ngi léewtu mi-temps mbokk yi arbitre bi woowaat na ñaari xale yi sifflé na combat bi ndongo daara ak Double bu jagle ñu ngi léewtoo ndongo daara ak Double bu jagle seen combat bi yàgg na trop Ndongo Daara sànni na benn coup waaye dalul ñu ngi léwtoo ba tey ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ba tey bi nee na leen bëri leen bu yàggee reporter yi reporter sax dañuy découragé kenn xamul li lan la Leewtoo rek jëmale suba jubal bu jagle ak ndongo daara ñu ngi Leewtoo ñoom ñaar xëy na bu nu jàppante woon carrément lamb ji jeex arbitre arrêté na combat bi da di jox avertissement ndongo daara am nga ñaar dubal bu jagle am nga ñaar arbitre sifflé waat na combat bi dinañ leen avertir avertir daal leen. xaw ma nu ko mën a waxee sax dañ leen avertir avertir waat leen ndax combat bu yàgg léewtu bu yàgg amateur yi ba dañuy dem ba dut ñu bëgg dara combat mën naa yàgg sax te neex nag nga gis bëri ba si gis xeex ñu ngi léewtoo ñu ngi lewtoo ba tey waaye arbitre wax nga ba son contact ba sonn mais dara arbitre day arrêté booy bi ba léegi mi ngi sañe arbitre bi woowaat na ñaari xale yi sifflé waat na combat bi ndongo daara ak double bu jagle double bu jagle ak ndongo daara combat bi 18 heures 5 lañ ko soufflé yaakaar naa mais c'est grave ça il est 18 heures 50 minutes ah. taxaw taxaw yi ñoo bari. daw na ko jël ndongo daara jël na ko duul bu jagle bal na ko bal na ko bal ndongo daara dafa bëgg a génn wala day génn wër na ko ndomba wër na ko ndomba ndongo daara wër na ko ndongo daara wër na ko ndomba ndongo daara wër na ko ndomba laay laay la laa mais duul bu jagle mi doom jàmbaar la te da ciy génn de wala laay laay la laa ba léegi ma nga takk takk bu dëgër moom ndongo daara fi na la takk ah day bàyyi mais double bu jagle liggéey na ci combat bi ah mais des fois man man franchement je si suis trompé ah parce que yaakaaroon naa ni ndongo daara dafa sàcc booy bi doole mais alors que tel n'est pas le cas vraiment ci jàppante bi gis naa ni non booy booy bi. Boy Double bu jagle am na doole parce que ndongo daara fi nga yegg da nga naama gën koo daaju rek waaye ndekee poo ko doole de laay laay la laa arbitre bi woowaat na ñaari mbër yi wala day dellu mais booy bi il faut xam ni yaram bi day tàng il faut ñu xam ni xale moom bu deretam commencé rek feeg yaram bi mi ngi gën di tàng muy gën di saigné mbokk yi arbitre bi sifflé waat na combat bi ñaari xale yi ñu ngi léewtoo ba tey seen léewtoo yàgg na seen combat bi yàgg na kéemaan la dóorewu leen fayewu leen combat bi yàgg na lool mbër day wane boppam ci mën a bëri ci xarañte làmb du xeex rek de déedéet làmb du défendre sa bopp aussi mais il faut mettre les points dans mais jéem a bëri wane sa wane sa mën a bëri wane sa xarañte ci la la lamb di reconnaître waaye ci xale ba lu mu bëri tey ci xale ba jël ba daan waaye loolu dafa neex loolu nag préparation bu wóor moo koy waral quand tu as un combat il faut bien préparer. arbitre bi arrêté na waat combat mais mais franchement lii nag bu fekkee ne deret ji mënul arrêté kéemaan la daal waaw ma yaakaar naa ni combat bi day jeexee fii waaw waaw dañuy yëkkati loxo bi waaw waaw daan na Double bu jagle jox nañ ko victoire bi parce que Ndongo Daara mënul eggale combat bi waa xale yaa ngi noonu ñoo ànd ak Double bu jagle. Euh, yoo xam ne yaa ngi daa ñibbi soxna si fekk reer na ba pare xale yi reer nañ ba pare ak léegi yaa ngi ñibbi naan leen ba xam reer bi du pareegul seetal différence bi. mais promoteurs yi d'accord. ah promoteurs yi ñenn nañ. pour les grands yi d'accord nañ xam lu ñu wax euh, nañu wàccee heure bi heure bu bi mais heure fin bi moom ñoom ñëpp a mais heure démarrage bi wàcce wu leen ko 4 heures et quart la woon da ngeen ci dolli 30 minutes muy ba tey baax na am nañ 30 minutes yoo xam ni lu ñu bëgg a def mën nañ ko see def te du tee à 19 heures et quart ñu sifflé combat yi nit ñi ñibbi si si leeraay lépp leer daal. maa ngi lay nuyu sister. maa ngi lay maa ngi lay fay. nan la salaamaaleykum maa bu baax. journée Ndiambour production mm-hmm. tey lan nga waa tey ak lu waral <laughs> macha allah Ndiambour production moom dañu def lu rëy parce que dañu organiser bés bu toll ni tuddee ko El Hadj suñu papa donc ñi nga am mbégte ak contentement tey ñaan yàlla suñu borom bi yàlla bu mu dakk yàlla nañ koy def ay ati ati at yàlla def ci réussite. bu mag a mag a mag at mu jot comme ni mu ko defee nii macha allah. mais ñu ngi lay féliciter ci way wure yi merci beaucoup merci. merci beaucoup jërëjëf. ñu ngi sant bu baax baax. journée Ndiambour production tey waa tey dañu ñëwoon rek gunge si suñu euh, parrain bi monsieur Faye ñu xamee ko ci Abdoulaye fay vraiment ñu tuddee woon que le grand combat ñu ñëwoon nag accompagner ko gunge ko sawar ci loolu aussi ndax moom day doomu Tëngéej xam nga euh, mën lu baax di xam di def lu baax daal biir Tëngéej donc ñun aussi vraiment en tant que responsable politique bu ñu sollicité vraiment bu ñu sollicité wul sax dañuy ñëw accompagner ko ndax moom borom baax la daal. journée Ndiambour production. waaw sant yàlla bu baax macha allah rafetlu nañ vraiment déroulement wu combat yi gis nañ ni euh, bëri nañ ko ci discipline respecté nañ aussi li nga xam ni mooy euh, consigne yi ngeen joxoon. te vraiment lamb ji comme niñ ko gisee teel naa tas si jàmm ak salaam amul benn violence te yàlla def na ni nag ki gañe tey jii mooy doomu guy murit fa ma jógee kon ndam li suñu ndam la dañ koy yóbbaale kontaan. <laughs> mais li mu def nii tey organiser bés bu toll nii tuddee ko élage Hadj Ndiouga Dieng di ko fàttaliku tey euh, bu ñu nee département de Rufisque ak Bargny tey xel yëpp day dem ci moom. Mhm. kon macha allah li ñu war a def rek la ñu war a def. Mhm. waaw di nuyu nag sama. tonton Lamine Samba bu baax a baax a baax ndax moom dafa ñëpp xam nañu dafa baax te bëgg Ndiouga Dieng ak waa këram dafa baax te nekk ci réew mi def fi lu baax dëkk ci réew mi bokk fi kenn gënu ko fee bokk waaw mu nekk nit ku baax nit koo xamante ni làmb boo ko tuddee di nga tudd Lamine Samba mu nekk nag koo xamante ni xale yëpp tey ji doog a jóg di dugg ci làmb ji di wax dañ koy roy macha allah tey ji liñ ko defal nii daf ko mérité maa ngi remercier sama papa Serigne Mbacke Ndiaye ndax moom dafa am kóllëre ah, tey ni mu meloon ak sama papa tey fàttewu ci dara waaye moom nag tamit dafa nekk sama xarit ndax njaboot goo gis am na xarit waaye li mu def ni tey jël trophée bi jagleel ma ko maa ngi jëlaat trophée bi tey jii di ko jagleel tey jii sama mag yi nga xamante ne ñoo nekk fii teew muy maar Dieng muy Pama Dieng muy Momo Dieng muy Alpha Dieng muy muy Aram Dieng muy Ndeye Gueye muy Khady Dieng muy tey ñëpp ñu fi ñëw tey teew njabootu Alaaji Ndiouga Dieng macha allah Awa Dieng tey jii ñoom ñëpp ma ngóone fàttewu ma kenn ñoom ñëpp jël naa trophée bi tey jii delloowaat leen ko dara doguma la muy doomu Mamadou Diop ndeysaan ancien maire bu Dakar mu am loo xam maam Kumba mu am lu mu ak sa papa mu yaram bi xaw a wéradi moom sax moom moo tax ñu renvoyé remise du drapeau bi ba le 21 juillet mu ne moom parce que digganteem moomu ak sa papa tey am na loo xamante ni nañ laaj yax ya nekk ci àllaaxira moo tax def lu baax rek moo am solo def lu bon amul solo ba pare sëñ Modou Kara Mbacké dégg ko loolu dama koy jox exclusivité ne ma la Lamine Samba yére ba nga fay sol maa la ko jox lii Serigne Modou Kara moo ma ko jox. macha allah te am na sax beneen gilet bu mu àndal. moom Mbacke Balla bàyyi ba ak Baara maam it dana ak Cheikh Mbacke montre bi ma teg seetaan naa la moom seetaan naa mu def ne ma sama diggante ak Ndiouga Dieng ndax am nga loo ci xam ma ne ko déedéet mu ne ma la preuve mooy dama lay jox yére boo yóbbu ca drapeau Alaaji Ndiouga Dieng am na benn gilet sax boo xam ne moom la àndal moom dinaa ko sol après jongante di joxaar ñëpp rendez-vous dimanche yow soo ñëwee yaay présenté émission bi soo ñëwul yaa koy présenté kon on donne rendez-vous à tous les euh, téléspectateurs et tous les amateurs dimanche 21 juillet à partir de 22h après combat Balla Gaye ak nga xam ne moom mooy Tapha Tine en direct ci jongante télé tonton doguma la mais Mame Coumba Diop soo ko tuddee mu nekk koo xamante ni ñëpp xam nañ ni tey euh, Mamadou Diop ancien maire de Dakar yàlla na ko yàlla yërëm tey mooy papaam muy sama genn wàllu papa ak sama turandoo muy Sabel Gueye ah sama bàjjeen sabu nenne maa ngi leen di woo incha allahu rabbi yéen ñëpp dimanche incha allahu rabbi ñun ñëw tey trophée El Hadj Ndiouga Dieng bi seen trophée la yéen ko moom maam Kumba laafiya yéen ñëpp maa ngi leen di woo incha allahu rabbi waaye nag dimanche incha allah nañ ñëw ak suñu orchestre live lu neex na dañuy waajal grand théâtre le 3 août incha allah ah, Pama Dieng Sabel Dieng te tey dimanche incha allah vingt 21 tey ji après combat Tapha Tine incha allah ak Balla Gaye macha allah Ndiambour production ndekete ñoom lu ñu tëggul rek neexul. sànq ñaan naa la benn affaire muy muy wayu làmb. kii mooy sunu père Demba Sy. maa la wax loolu adduna bi dem na banu Sénégal na adduna bi dem na banu Sénégal eh bay balla bay balla Njaay Samba mu ndaanaan la woon yàlla ko yàlla yërëm ndaanaan bu mag bi dem waaye de sa woo puso bi mu balla sama doom jaangi ni ñaawu aayo gaaf tey ma jiin ki teral ndeyam teral mbokki ndeyam teral baayam baam ñaanam addina bi jarul ñaaw duniyaa woori nen la Abdoulaye Mboup dem na banu Sénégal. mais mais fàttali nga mënu doy waar lii dafa bari doole li Ndiaye Samb bu ko woon Abdoulaye Mboup macha allah ndaanaan la woon boo xam ni ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yóbbu ci àjjana yi gën a sa baay ndaanaan la woon barke Seydina Mohamed man dama ko doon bégee. moo ko woon nguñ ko diwekki Ndiaye ma dikkee Samba Ndam Xaar Ndiaye. Ndam Xaar Ndiaye sama am léewu Abdoulaye dem na baanu Sénégal weet naa. neexu ba neexu ay jàmbaar lañ de. bi dox waaw leneen daw tey dox na wala doxul. ah doxul moom wax dëgg yàlla. Ah. doxul moom wax dëgg yàlla. dox moom def moom waroon naa gën neex moom. loolu lañ jaay ba pare nekk ay complexe. tey affaire bi dox na wala doxul. ah doxul doxul dara doxul ba pare ñu daggalu ñu ticket. 1000 francs dara doxul. ñëpp a lambale ñëpp a lambale mi ngi nii jaay ma wax. mari. seen far yi di bañ ñu heure sama gënal ma yow. ndeysaan. waaw boobu yi. moom euh, suñu nit la. waaw ah, vraiment Bamba suñu nit la lu Rio Events organisé dafay ñëw jàpp si. day waaw wax dëgg fa yàlla di ñu taxaw ci lu bëree bari moo tax ñu jël maillot Lebougui bi lion rouge bi décoré ko ko. waaw waaw vraiment di wax ne nag dinañ ko invité suñu premier match mu ñëw jël convoi bi. waaw invité la boutique ba. nga ñëw xool si bagage yi. yaa ma gën a xam. amul mbala lii rey na. mais lii lépp jël naa ko yow it delloo la ko. ndax yow am na lu bëri loo xam ne def nga ko ci ba tey jii Bamba boo amee fit ah, di wax nit ñi di ko dégg am na lu bëri loo xam ne liggéey nga ko ci. ak grâce tamit à Bantamba TV. Ah, ak équipe bu TV bi yëpp maam ñaaw ñu ngi koy jaajëfal bu baax. ndax bu ma defalee lii Bantamba TV gépp la ko defal waaye nag sant nañ kon premier match boobu incha allah dinañ ci dem. incha allah Baye mii dina football bu soobee yàlla. Modou moom joxoon naa ko daaw di géej. ñu ah. jël ah. Ah. ma fàtte ka. kon yàlla na ngeen jël coupe bi. <laughs> moo tax ren ma indiwaat bosom. waaw kon yàlla na ngeen jël coupe bi. jërëjëf suñu mbokk téléspectateurs yi ah bëgg naa leen bu baax a baax a baax mbokk yi gis ngeen tey li nga xamante ne moom moo amoon. ci biir arène nationale mbokk yi ñamb production moom la ñu àndaloon tey ci bis bu rëy bi mais nag drapo El Hadj Ndiouga Dieng El Hadj Ndiouga mi xam nañ ko bu baax mu nekkoon ndaanaan nekkoon koo xamante ni ku mën a way la nekkoon koo xamante ni réew mi ku nu ràññee la woon nekkoon ci euh, groupe bu ñu naan Baobab bay waaram ci réew mi jël drapeau Sénégal yóbbu ko fu ne partout dans le monde représenté réewam am lu bëri lu mu def ci culture tey. yàlla dogal na ni nekkatu fi ay doomam ñu ngi fi Alpha Dieng mi ngi fi moo Dieng macha allah gis ngeen xale bi doon way sànq Sabel jeng doomam la kon am na cir ah ci réew mi en tant que doomu Tëngéej tey drapeau ah, ki nga xamante ni mooy suñu baay Alaaji. waaw loolu lañ si sant yàlla di julli si yonant bi di gërëm sunuy waajur di sant Tëngéej gi yëpp di profité si occasion bi Baye Balla di la sant di la gërëm di gërëm ilimaan bi nga xamante ne moo jël drapo bi ndukkalee ko sunu maam jooju. nga xam ne teewal na askanu lébu teewal na culture Sénégal jël na aada ak cosaanu Sénégal yóbbu ko fu ne donc tey buñ ko sargalee dañ ko war a sargal ñu siy sant yàlla bu baax a baax bi làmb ji commencé bisimilahi rahmaani rahim jéexee alhamdulilahi rabil alamin ñaari mbër yi bëre grand combat bi non pas démérité muy duubal bi nga xamante ne ñun ñoo ko indi woon di duubal bu jagle ak ndongo daara bi nga xamante ne moom la bëreel ñoom ñaar ñëpp ngeen lañ waree ñëw bëri seen biir donc loolu da lay wan ne sport moom mënta génne sport donc ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di am contentement bu rëy a rëy rëy di wax ne suñu bàyyi jooju nga xamante ne moom lañu ñu jagleel woon bi yàlla na suuf woyof si kawam njabootam bi fi bàyyi yàlla teg si ñoom loxo. jërëjëf suñu mbokk yi bëgg nañ leen gis ngeen maam ñaa moo doon waa ban yëpp ñu ngi leen di félicité tey seen doom da doon bëri si ni parñi champion la ndaanaan la gis nañ li mu def ci drapo chef de l'état bi yooyu dañoo war a dañoo jar a jàppale ay mbay jub palmarin yi bu yooyu ay ndaanal leen ah, am na yeneen booy yoo xamante ne ay champion lañ amoon drapeau chef de l'état te ñu ngi ci arène bi di def seen i preuve mbay jub palmarin aussi kenn gënu koo doon ndaanal xale yooyu nañ leen jël wutal leen ci combat yi bëre ah ay champion lañu ah nañ leen bàyyi xel lamb bëri na ay espoir mbokk yi bàyyi la woon le gros du et des sans voix man mbokk lex la àndaloon ci sama caméraman ci biir Bantamba TV Pamoudou Mbaye lii moo amoon fi nga xamante ni moom mooy arène nationale wuy ma maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax waaye nag di la wax ne le 21 juillet ci Boubou Pix gis bu mag lay doon ak Albourakh Events mbokk yi Baye Ndiaye mbokk yi Abdou Aziz Ndiaye le fils de son père li doon baay bi ci jukku ci doon baay bi ci jëf ju baax mbokk yi ñoom ñoo xewle le 21 juillet diggante Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye ak ki nga xamante ni moom mooy Tapha Tine le géant de Bawol cey boobu combat cooli bañ na ñii nee nañ Balla moo avantage ci bëri bi ñii nee nañ Tapha Tine avantage ci xeex bi waaye bis boobu lay leer le 21 juillet fii ci biir arène nationale mbokk yi lëkka gañ lëkka meilleur gañ daa ngeen jëfoon loof